gerte ba ma nga na kante ba ma nga na seti wallaay seti suñu mburu kante doom soori kante kajatu kante sama moo dakkoon suñu te kayit dakkee ko mali bo bo saare yaa Maymuna Kanté dama koy damay tàgg ma leen mbaay man la mbaay ah, ah, anaya madu nañu ma subole Musa Jube mu kaana kulo kulo wolle pirim man la mbaay maa la tàgg baayo sama papa kat moo léegi ay yuuxoo ay kër di kër mu ne ñëw xool man yaa papa yoro da ngeen di xeexaat kon ko yéen ci xeex ngeen dëkk kat moo tax mu naa ñëw xool mu sa sa papa lu mu dégg nga de ay yuuxoo ay wëyaay ay naa ñëw xool da war am jabar nag fi ne rek léegi nga âgé waaw waaw kilifa nga nag âgé ah, loo de am na ku ma commencé jël fan kan loolu kan la Aïssa si léew euh, mooy xale su ndaw fii ñëw nii mu cukk suñ la sa lan la te mu cukk suñ la man ma dem expliquer ko ne yow gëmul ah. loolu jarul explication nag ah. yow kay defal fulla bi ak fayda bi quelques mois ñu def bii muy résultat waaw ñun suñu famille dañu dañu jigéenele man maa si nekk góor ñi si gés yëpp ay femmes lañu dañu jigéenele moo tax ah. yow kay def ko <laughs> dimbal rek. Hmm. merci beaucoup sa waay kay. yow yaa ko dimbal moom. <laughs> man sax kaw mu noo ko nobee nii. ok si ah? yoroon bàyyi tooñ. kaw mu noo ko nobee nii ak porokaayam tilim. maamuna. waaw baay. bulo bulo. neex na naa yaa. amical vraiment jërëjëf. léegi moo tax la indi fii. jërëjëf kontaan. waaye léegi moo tax ndax yow nga wax da ngay ñëw nuyu ma ma yaakaar yow kese yaa ñëw nga indi topp bi. sew comme génte la looy génte nga di wax. waaye wani dëgg loolu comme jigéen mu ne foo nii rek nga kontaan sew. he. waaye nag nanga ma sa bopp parce que bu ma la gisee nga gerte wala nga wala nga jëm ci yamba. bu ko defee dinaa la léegi góor a dinaa la déglu dëkk. sàccu ma sàccu ma kan ah. kii nag laa doon rey. kii nag su ma su ma ma yow nga nekk sàcce yow nga nekk sàcce yow. Ah, bon. da ngaa bëgg a xam lu leer. waaw nga ci sa pap nga ko def ba doxaan yow nga mu def ba doxaan sa sa sa ba yow. xale bu ndaw nga ko def ma sàcc. moom li ma sàcc moo gën a garaaw. Mbaye mooy lan laa la waxoon ah ah Mbaye eh. lan laa la waxoon lan laa la waxoon Mbaye ah nee nga moytu ma ci kër gi. jarul jarul Samba Samba da ngay agressé da ngay agressé Samba taxawal taxawal taxawal Samba taxawal. da ngay dem di ngeen di man sama doom yàgg na am métier du sàcc du waaye ñiy fen di sàcc ne ci kër gi amunu jabar amunu liggéey amunu waxaale man. su néewaam wax ko jëndal attaay nga seral sa kol